الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونصح الامه ومهوى الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه بخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مكيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi ñu ngi fàttali sunu bopp di fàttali mbokki jullit yi ne islaam aw dundin la dundin woo xam ne ci yàlla tabaraka wa taala la bàyyeekoo sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñëw firil nu ko jàngal nu naka lan koy dundi kon dana jaadu nekk warugar ñu xamal xeet wi góor ñi ak jigéen ñi ku nekk da nga am sa place ku nekk da nga am sa tëni waaye ku nekk da nga war a mel melokaan boo xam ne yow la ko yàlla tabaraka wa taala jagleel nga wuute kook sa moroom xam ngeen ne tey xeet yu yàqu gi nu yàqu ci jullit yu góor yeeg yu jigéen yi surtout ci côté ndaw yi waxatunu sax ci wàllu col gi xam ngeen événement bi tey mooy ay góor yuy rosa seeni tuñ suñ demee ba xeet wi yàqu ba góor ñiy rosa xanaa loolu lu muy tekki mooy waxoon nañu ca jamono bi góor yi tàmbalee di bënn seeni nopp tàmbali di wàcc seeni tubéy tàmbali di takk fer tàmbali di létt xamoon nañ ne tey fii la ñuy teeree mooy góor ñi dana mbëru di rosa di ko concurrence ak jigéen ñi débat bi tey RFM loolu la woon mooy góor ñi dañuy rosa léegi ba pare di romb ay nit ñu naan leen allahu ak rafet lan moo des tey ci dikko lislaam yi lu des ana ñu baax ñi ana kilifa yi ci biir kër yi ana kilifa yu góor yeeg yu jigéen yi ana ndey yi ana baay yi ana imaam yi ana sëriñ yi ana xalifa diina ji li ruslu Sénégal mooy bu dëkk bi tàkk kilifa diina yi kenn du wax li ruslu ci Sénégal mooy saa yoo déggee kilifa diina bi wax mooy bisu bu ñu war a indi xaalis la wala bu ñu war a bay wala bu ñu war a wala bu ñu war a waaye mbirum diina moom ak li yàq réew mi kenn du ci wax loolu moo loolu mooy métit ku am fiirtaange tuuti sa xel ak sa xol diine nekk ci loolu ngay yëg sunu yonent alayhi salaatu wa salaam mu wax ci hadisu ibnu abbas mu ne yal na yàlla soril yërmande laana la wax almutashabbihin min alrijali binnisa walmutashabbihat min annisa birrijal sunu yonent alayhi salaatu wa salaam mu ne yal na yàlla soril yërmande walla yal na yàlla soril aw yiw góor ñi bàyyi seeni melokaan yor melokaanu jigéen ñi yal na yàlla soril yërmande walla yal na yàlla soril yiw jigéen ñi bàyyi seeni melokaan di toppandoo góor ñi ngeen dafa ne ku yàlla rëbb ku yonent bi rëbb ne yal na la yàlla soril yërmande yow ci lan nga nar a dund te ñooñu mbokk jullit yi di ko def nekk ay góor ak jigéen tey soo génnee bu ñu sëlmalee juma kenn ku jullu si ci woon ci yéen gàddu si yaadaam balaa ngay egg sa kër konteel ci mbedd mi ñaata jigéen ñu sol tubéy ngay dajeel ba ba ngay egg sa kër ak ñaata jigéen ñu wodd ñoon ñoo ëpp waxuma sax tubéy waaye bu doon tubéy yu baax waxuma sax col waaye bu doon col gu baax sax waaye tey dañuy nekk ci lu nu neex bu jumaa jotee rek ñu gàddu suñuy siyaada ñëw julli dafa ne pare nan fàtte nan ne yowmal xiyaam yàlla dinañu laaj suñu njaboot gi mbokk yi jigéen juy nuru nuru lu góor yàlla dalaa rëbb góor guy nuru nuru lu jigéen yàlla dalaa rëbb waxatuma nag nga nekk góor jigéen jële nañ ci hadis boo xam ne imaam Ahmad moo ko solo ak Abu Daawud ñu wax même hadis bi yal na yàlla soril yërmande jigéen ju nuru nuru lu góor ak góor gu nuru nuru lu jigéen su ñëwee ci hadisu Tabraani boobu tamit bokk ci hadisu Ibnu Abbas Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ñu nettali na benn jigéen moo romb Yonent bi marrat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam bi mu rombee yonent bi mu ngi nuru nuru lu góor ndax mu ngi col col ka góor yonent bi ne ko laana allahu almutashabbihat min annisa birrijal yal na yàlla soril yërmande ci xeet wi bépp jigéen bu nuru nuru lu góor ñi loolu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax melokaanu jigéen ñi lan la jigéen ñi yan yëre lan war a sol waaye góor ñi lan lan war a sol waaye jigéen ñi nan lan war a mel góor ñi nan lan war a mel lépp bépp melokaan boo xam ne day tax ñaari xeet yi di jaxasoo ñu tere ko mais tey am na góor ñoo xam ne kenn mënatu leen a xàmmeeg jigéen ci wax ci jëf ci col ci fréquentation jigéen ñi kazaalika bal sax bu cinq heures jotee ngoon ku ci am jot demal fii ci kanamu préfecture di nga fa fekk ñaari équipe yu jigéen ñuy football di nga fa fekk ñaari kuréel laa wax ay jigéen ñuy entraînement di football loolu du sunu aada du sunu jikko du sunu diine waxatuma laa nag jigéen ci sol kilot awraam yëpp nekk ci biti mu sol seetement yaramam yëpp nekk dong ci biti ba adunay baax jigéen kenn xamu ko woon ci football la yàlla waxoon jigéen ñi mooy waqarna fii buyutikunna toog leen ci seeni biiri kër wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati l ula bu leen tambaambaalu ci mbedd yi comme ni ko ceddo yi doon defee tey nag roy nañ ceddo yi biir ak biti bàyyi sunuy jigéen ak sunuy xale yu góor kenn xamul lu nuy nuru ma ne yahud yu baax yi sax ak nasaraan yu baax yi wallahi duñu sol yenn col tey yu jullit yi di sol yahud yu baax yi laa wax soo demee ca yahud ya ñu baax ñi ca góor ña bu ñuy sol tubéy duñ ko wàcce ba ci seeni pooj abadan dañuy sol tubéy normalement soo demoon ca nasaraan yi tamit kazalik da ngay xool yenn saa yi ay film documentaire nga gis yenn labbe yu jigéen yu muuru muuraay yoo xam ne moo gën muuraay yu jullit yii ndax rek ñàkk dégg sunu diine ndax ñàkk roy yonent bi ndax Sénégal nji yombal nit ñi diine ba nga xam ne jàpp ne mun ngaa def tooxi doona bu la neex na nga dem fee rek am na ndox mu fa nekk boo ci naanee wala fee rek boo fa julee ñaar rakk wala boo ziyaaree diw rek àjjana nga jëm semaine bi dégg naa ci rajo kenn nettali moo ko maa ko dégg sama nopp kenn am kuy wax mu ne ndox mii nekk fii zam-zam la su aj maa ko joxee ndox mi day aji su aj bi jeexee ndox mi ñëwaat loolu loolu ban ndox la ko yàlla indi Sénégal fan ana aaya bi yàlla wax ne ndox moomu man maa ko indi ndoxum zam-zam bii ñuy naan mu jóge màkk ñun ñëpp jàng nañ histoire bi fu mu bàyyee ko yàlla wax ko ci alquran yonent bi wax ko yonent bi leeral ndoxum zam-zam fu mu bàyyee ko wala sunu ndox bi Sénégal nekk zam-zam nag fu mu bàyyee ko kan ana hadis bi ci ban téere nekk ndax mu ngi ci Bukhari ndax mu ngi ci muslim ndax mu ngi ci Abu Daawud Tirmizi Nisaay Ibnu Maaja loolu mooy kutubu sitta ci hadis yi gën a wér li mooy téere juróom-benn yoo xam ne suñ la waxee hadis jàppal juróom-benn téere yi waaw alquran mooy supérieur nag ku nekk jàng histoire Ibrahim ak Hajar ba ñu déparé Palestine dem Makka Ibrahima ñëw bàyyi soxnaam Hajar won ko ginnaaw ci yàlla dañu nettali fii waadin gayra zi zarin inda baytika al muharram yàlla mu ne foofu la Ibrahima bàyyi soxna si ba mu ko wanee ginnaaw soxna si xool àll bi xool naaj bi xool tàngaay bi xool montagne yi mu ne cas ci ginnaaw mbuubu Ibrahima mu ne ko looy def nii da nga ma fi ne la bàyyi maag sama doom ji ku la sant li mu ne ko yàlla mu ne ko demal kon yàlla du ñu seetaan waa ji daal di dem loolu mooy sababu zam-zam waaw Sénégal am na safa ak marwa am na hajaratul aswad am na ndoxum zam-zam makka jarta dem fii ku fi ñëw rek loolu yan aaya la yooyu yan hadis la yooyu jàngale ñu dund tey ci sunu réew nga xam ne daa bari partout foo dem diw génn na fii diw feeñ na ci weer wi diw yéeg na ci garab gi photo bi boo ko xoolee diw ngay gis yooyu la ñu war a bàyyi loolu moo tax xeet wi sànk xamuñu l'islam jàpp ne l'islam vendredi ba vendredi la wala korité ba korité wala tabaski ba tabaski ku nekk nekk ci lu la neex après rek suñu wootee rek boo ñëwee boo sànnee fii ci bàmmeel yi 1000 francs rek après yow àjjana nga jëm bu nax suñu bopp diine mooy lu yàlla wax lu yonent wax leneen lu dul diine boo ko defee boo ko indilee sa bopp da ngay am problème diine mooy lu yàlla wax ci alquran yonent bi leeral ko ci sunna foofu la yem leneen loo def wallahi ëllëg ak sibir danañ la poñe nee na ku la ko def loo c'est parce que du diine alquran 114 saar la yonent bi jàngal ko firi ko ba mu leer yonent bi génn àdduna bàyyi Aboubacar jël xilaafa gi Aboubacar ñëw def li mu fi doon def dem Omar ñëw Ousmane Ali naka noonu lañ ko toppandew ci xulafa ar-rashidin ba diine ji egsi ci ñun ñun nag bu ñu amee beneen façon diine bu yonent bi xamul woon bu ñu amee beneen façon diine bu Aboubacar xamul woon ñun fu ñu jëm yonent bi dund na ba faat masta wax sahaaba yi mu àndaloon ñu nekk cent vingt quatre mille yonent bi mustee jàpp benn sahaaba ne la kaay ma wan la yàlla pourtant xeexoon nañ de ñoo xeex Badr ndeysaan keroog ñetti téeméer lañ ak fukk ak ñett yéeféer yi nekk junni ci naaj bu tàng ci weeru koor ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor naaj baa ngi tàng jër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndeysaan bi mu xoolee sahaaba yi mu yërëm leen dafa taxaw di ñaan yëkkati loxo yi ba poqataan yi feeñ kaala gi daal di naaw ci bopp bi Aboubacar jël kaala gi tegaat ci bopp bi yonent bi ñaan ba kaala gi naaw Aboubacar dafa mujj naan ko doy na yàlla du yàlla du neenal sa ñaan doy na ndax yërëm gu mu yërëm julli ñi keroog ndax tuuti bu ñu tuuti waaw yonent boobu xoolal gaa yooyu xeexoon xeex boobu yonent jàppul ci loxo kenn ne ko kaay ma wan la yàlla yàllaa ngi ñun fii da ngay lekk sa cëram bu ba xiif suur yeewu rek ne gis naa yàlla biig waxuma sax yàlla mais léegi dafa am ay nit ci ñun ñoo xam ne waxu suba sax dañuy gis yàlla mais ay yàlla lañ loolu ban diine la Aboubacar gisul yàlla yonent bi wanu ko te ginnaaw xeet wi yonent bi Aboubacar moo ci tegu yonent bi nee na maa wataati l ard baada al anbiya xayrun min abi bakr suñu wëree kaw suuf ginnaaw yonent yi ak man yonent yàlla muhammad ba ma demee yonent yi dem kaw suuf kenn tegu fi tànkam ku gën a baax Aboubacar waaye gisul yàlla de law kaana nabiyun baadi la kaana Umar bu doon yonent dama ñëw sama ginnaaw Omar mii lay nekk Omar gisul yàlla Ousmane yàlla da koo rusoon parce que yonent bi moo ko wax malaaka yi dañ koo rus yàlla rus ko waaye gisul yàlla ali yonent bi nee na maay buntu xam-xam maay xam-xam ali mooy bunt bi gisul yàlla Eh, ñun ñun waxuma sax benn borom xam-xam waaye koo xam ne day kiris karas tubayam cëkkal bopp bi du julli waxtu yu juróom xëy rek yor kurus bu toll ne fii ak asalam Paris kaay leen ma wan leen yàlla gis naa yàlla bii nan bàyyi font nan jàpp ci sunu diine diine mooy yàlla nee na yonent nee na leneen lu dul loolu wallahi alazim boo ko diine woo boo duggee biir bàmmeel di nga rëccu nanu xam ne góor ak jigéen du nu nuroo walaysa zakaru kal unsa alquran moo ko wax góor ak jigéen du nu benn yàlla nee na inna saayakum la shatta ñoom ñaar sax seen jëf dafa wuute bu nu wàccee saaku ceeb ci buntu kër gi kenn du ne ana xale yu jigéen ñi lu ñuy wax ku nekk eggali ko bu nu wàccee ciment bi ci buntu kër gi kenn du ne ana xale yu jigéen ñi parce que jigéen attanut saaku ciment ana góor ñi la ñuy wax ana góor ñi allahu akbar kon wa laysa zakaru kal unsa inna saayakum la shatta yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yal na yàlla soril yërmande jigéen juy nuru nuru lu góor góor guy nuru nuru lu jigéen ñoo na ci hadis abu umama yonent bi ne arbaatun lu'inu fi dunya wal axira ñeenti nit yàlla rëbb na leen adduna rëbb na leen alaxira ñeenti nit yàlla soril na leen yërmande mu ne rajulun jaalahu llahu zakaran fa ansa nafsahu yàlla sori na yë soril na yërmande góor goo xam ne yàllaa ko def góor mu def boppam jigéen allahu akbar tak bënn nopp takk jaaro ñu ne déet mu létt ñu ne déet mu dem da ngay gis ku ñu al ku ñoo xam ne dem nañ ba ci médecine di changer seeni organe pour nekk jigéen waaw yàlla mi la bindoon moom mu xamoon ne yow góor nga war a nekk mu def la góor kon léegi da ngaa bëgg ne yàlla dafa juum ci man lu tax mu def ma góor ci góor man jigéen laa bëggoon nekk ñun ñëpp jàng nañu alquran yàlla subhanahu wa taala bi mu lay bind mooy ki la bind alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalak fi ay suratin ma shaa rakkabak yàlla nee na maa la bind yow ma ci bind la waaye maa xool man yàlla modèle bi ma neex forme bi ma neex melokaan bi ma neex fi ay suura mooy melokaan melokaan bi ma soob ñuul wala weex xonq wala zone yàlla nee na ma bind la ci njool wala gàtt yàlla nee na ma bind la ci am yaram wala sew ma bind la ci yow léegi nga ñëw fekk góor nga nga ne yow bëggoo nekk góor jigéen nga bëgg a nekk yonent bi nee na yàlla soril na la yërmande mu ne wa tashabbaha bin nisaa waa jooju yamul rek ci changer ay organam ak ay colam ak langage am ak léppam pour nekk jigéen waaye dafa dem nuru nuru lu jigéen ñi wa mraatun jaalaha allahu unsa fa tazakkarat wa tashabbahat bir rijal ak ndaw soo xam ne yàllaa ko def jigéen mu bàyyi melokaanu jigéen ne góor la bëgg a nekk dem nekk góor yonent bi nee na ñaar ñii yàlla soril na leen yërmande wallazi yudillul ama ak waa ji taxaw ci mbedd mi silmaxaw làmbatu ba yegg si ñu moom ne ko yoonu sàngam laa jëm au lieu mu orienté ko ci yoon bi mu wëlbati ko ne ko yoon waa ngi nii réeral ko képp ku réeral silmaxa yonent bi nee na yàlla rëbb na la yàlla soril na la yërmande ñeenteel ci ci gaa yooyu mooy kuy sang sang lu te doo sang borom bi tabaraka wa taala nee na kuy xam-xam lu te xamoo di sang-sang lu te doo doo dara yow yàlla subhanahu wa taala soril na la yërmande ixwata al iman aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الآق لوالديه والديوس ورجل tashabbaha bin nisa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñetti nit yàlla soril na leen yërmande ku njëkk mooy kuy dënge sa ñaari way jur am ndey ak baay te mënuñoo am ci yow lu baax yonent bi nee na yàlla rëbb na la yàlla soril na la yërmande ñaareel mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak dayuus mooy koo xam ne waa këram bu ñuy mooy yàlla mu naan ay xale lañ bu ñu màggee mu dañ wala mu dem indi ji mooy yàlla ca biti indil ko waa kër gi ne leen mooy leen yonent bi nee na kii yàlla soril na ko yërmande ñetteel mooy góor guy nuru nuru lu jigéen wala jigéen juy nuru nuru lu góor mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ba tey ne ñetti nit salaasatun laa yadxuluuna aljanna abadan addayuus wa rajlatu min annisaa wa mudminul xamr yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dayuus du dugg àjjana ñu ne ko akkan mu ne góor guy nuru nuru lu jigéen ñu ne ko akkan mu ne ko kuy naan sàngara sax ci dëkk ci kan sahaaba yi ne ko ya rasulallah amma mudminul xamr faqad arafnaahu famad duyuus famad dayuus yonent ñun de xam nañ naankatu sàngara bi nga xam nañ ko waa dayuus moom mooy kan mu ne alladi yaqirru su fi ahli ki nga xam ne waa këram du ko déranger mukk fajar ñuy nelaw te julli wuñu du ko déranger am garaawul koo xam ne waa këram def lu bon ci biir kër gi du ko déranger danaan ay xale lañ rek garaawul garaawul quoi man nii laa meloon ah bon maa leen gënoon dëng ah temps yooyu man fecc naa fu nekk fecc naa ngeros dem naa sàngam dem naa sàngam loolu ngay dégg paa yu dëng yi ñuy wax moo tax seen doom yi du ñeru ole ñu freiné loolu depuis waaye da ngay dégg ñu ne non garaawul dinañ mës a juma parce que man nii laa meloon billahi allazi la ilaha illa huwa du ma dañ di fàtt bés bi nga xam ne damaa toog ci rajo bi dégg benn jigéen di woote wallu naan sama doom nasaraan yi dañ koo jël génne ko ci lislaam def ko nasaraan may woote ñan ñoo may dimbali ndax xale bi dafa feebar moo tax mu dem def loolu ndaw si joxe adresse am ma xëy suba jël oto dem amu deux fa la dëkk di laajte ba egg ci kër gi ma fekk fa yaay ji waxtaan ak moom bay génn góor gi ñëw borom kër gi ma delluwaat toog ne ko waaw man de information bi laa dégg dem moo tax mu ne ma non yaay ji kii dafa ëppal quoi non femme bi dafa ëppal mais femme bi mesure naa lu ko neex mu nekk xale bi mesure naa lu ko neex mu nekk loolu la ma bàyyi ji wax mesure na lu ko neex mu nekk moom moo ko tànn ah garaaw la non ñaar yëpp dëgg la ah islam dëgg la nasaraan dëgg la ma ne ko est ce que xam nga ne bu l'islam amoon Sénégal tey lu luy atteem ci diine mu ne ma non amoo ko ma ne ko dañ koy rey man baddala diinahu faqtulu loolu la yeneen ti wax ku bàyyi l'islam rek rey leen ko ma ne ko kii dañ ko waroon rey kon mais ma asaf yaay ji neen def feebar kon dañ ko war a dimbali ma laaj yaay ji fan la nekk mu wax ma ko mu ne ma mu ngi noor foire ci benn kër nangam ak nangam ma xëy suba dem foofu dem ba ci kër gi sone am ko ubbi man ko diw laay seet mu ne salal la man ko sama mbokk bu jigéen la mu ne ma dem na église kañ lay ñëw mu ne ma xaw ma ko ban heure lay ñëw mu ne ma xaw ma ko ban église la mu ne ma xaw ma ko ma dem 30 mètres toog di xaar ban heure lay wàcc ba ma këf ko dugal ko ci oto indi ko xam naa waa ji daf maa seen fi ma toog mu signalé leen ne leen am na ko toog fii pour récupérer ndaw si ca suba sa xale ba bu ñu ko jëm Rome lañ ko yóbbu foofu la julli di toll waaw julli di Sénégal foofu lañ toll seeni doom amuñ ci yar amuñ ci toppatoo ku sa doom sax tarxiis dugg ci dara booy amoo problème quoi parce que loolu lañ leen jàngal amu leen problème billahi wallahi wa taalahi ku fi bàyyi l'islam ku fi bàyyi diine ndax alalu àdduna ndax teraanga yi ndax ndomba tànk ndax nangam nangam ndax dañ laa jay ba nga woote wuloo nekkul wala nga woox ci diina ji lu amul ba nga dee dugg bàmmeel wallahi di nga rëcc di nga ne yaa laytani kuntu turaba noonu xam ne dund bu ñuy dund ci àdduna ak biir bàmmeel yi ak alaxira du benn li fi yonent bàyyi dafa leer nañ taraktu fiikum ma in tamassaktum lan tadillu baadi bàyyi naa fi loo xam ne feeg yéen a ngi ci jàpp du ngeen réer mukk sama ginnaaw ñu ne ko yonent loolu lan la mu ne kitaab allah wa sunnati rasul bàyyi naa fi téere yàlla bi ak sama sunna man sama doxalin man yonent alayhi salaatu wasalaam ñu ne bu ñu fi bàyyee téere yàlla bi topp ci ay caaxaan ay léeboon ak nëppoon ay gént ak ay raayi garab ak ay bërëngu ci suuf ak ay dañuy nax suñu bopp yàlla waxul fenn nañ fa bërëngu yàlla waxul nanu naan benn ndox fu dul zamzam yàlla waxul nanu laal fenn fu dul kaaba hajaratul aswad yàlla waxul nañu jubl nañu julli jublu fenn lu dul kaaba fa aynama tuwallu fa samma wujuhakum fu ngeen mën a toll yàlla nee na jublu leen kaaba loolu moo tax jàkka yi di jublu fi kon bu doon loolu nañ jublu fu nu neex lu muy tekki kon du nu am julli foog ñu delloowaat diine bi ci source ba mooy alquran ñu xool lii ngay wax ak alquran li mu indi lan la da ngay gis ñi nga xam ne ñëpp li ñuy def yëpp dafa wuteeg alquran waaye boo waxee rek ñu ne non waaye moom moom moom ay mbiram ah nañ ci maandu daal nañ lu ñuy maandu yàlla ne du dëgg ñuy maandu bu yàlla waxul woon waaye yàlla dane lu dul alquran ak sunna du dëgg loolu luñ ciy maandu yonent bi alayhi salaatu salaam dafay fekk ay caaxaan jële ko fi mais waxul fenn nan maandu maandu te mooy ñu gis lu dul dëgg ñu ne lii du dëgg ba nit ñi xam ne lii du dëgg balaa jullit ñi di fa dem mais bu ñu jëlee suñu doom yi tey xoolal ju doomu jullit lan la ñuy nuru kenn xamul xale yu jigéen yeeg xale yu góor yi lu ñuy nuru ay mbir yoo xam ne yonent nee na ku ko def da ngay dem safara moom lañ bàyyi suñu kër yi fees dal misaal yonent bi doonoon doon misaal axiru zaman mu ne suñ demee ba àddina di waaj a jeex dina nekk ay jigéen nisaun kaasiyaat aariyaat maailaat mumilaat mu ne laa yadxuluuna aljanna yemu ci de mu ne wala yaziqna naimaha fa inna naimaha tasiru min maysarati kaza wa kaza yéen ne bu ñu demee ba àdduna di waaye jeex dinañ gis ay jigéen yoo xam dañoo sol yére waaye seen yaram yaa ngi ci biti gis ngeen ko wala gisu leen ko ñi ci biir jumaa jéeg ñi ci biti laa wax gis ngeen jigéen ñu sol yére seen yaram nekk ci biti wala gisu leen ko tontu bi mooy gis nañ ko su imaam laajtee jumaa ku wax am nga jumaa loolu bokkul ak ki wax fekk yaa ngi wax ak keneen gis ngeen ko yéen ñëpp yonent nee na jigéen ñooñu dañoo dëng te dañuy dëngalaate yonent bi ne du ñu dugg aljanna du ñu mos xéewali aljanna waaw yonent bu waxee lii keneen ñoo wax leen non garaawul na xumb te dagan gaa yi tëgg di fecc di yuux rek di périer ba wër set kan moo wax dëgg yonent bi wax dëgg wala ñoom ñoo wax dëgg yonent bi maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuha lu mu wax yàllaa ko waxloo yonent bi yàlla moo signé ci gémmiñam kase ci làmmiñ bi in huwa illa wahyun yuuha kon yonent bi li mu ñu wax mooy dëgg nañu dellowaat xool sunu doom yu góor yi nga xam ne tey kenn xamatul lu ñuy nuur bëri na sax tey ku ñëw jumaa fekk yaa ngi kris karas da ngay rukoo sa silib nekk ci biti nga sujjóot sa awra yëpp nekk ci biti ba pare nga ni julli nga ana góor ak simmeeku def yaramu neen li ñu xamoon ci góor day takk tubayam ci ndigg loolu lañ xamoon nekk naa ci biir daara ji génn ci buntu bi di wuyu téléphone gis ñaari xale yu góor yu jàppoo ngandum écran télé suñu doxee ñaari minute teg télé bi yëkkati tubé yi dox ñaari minute teg télé bi yëkkati tubé yi ma ni waaw ma taxaw ba ñëw ma ne leen télé bi du yegg ñu ne lu tax du yegg ma ni minute bu nekk ngeen teg télé bi yëkkati tubé yi eh père père jéggalu de jéggalu waaw man jéggalu takk leen seen tubé yi yàlla nu yàlla woon dëgg mu wërsëgalu ñu topp ko da ngay gis maçon bu yendoo tabax birig bu mu teg yëkkati tubéy birig bu mu teg yëkkati tubéy ci kaw tabax boobu kañ lay yëg journée boobu yëpp maçon bi 20 birig lay lay teg soo ba ngoon birig boo teg yëkkati tubéy birig boo teg yëkkati tubéy waaw tubéy yooyu dañ ko mënut a takk te tubéy ju ñu def rek am na geeño wala mu am ceinture lan mooy lan mooy sunu aada ci simmi tubéy fan lañ ko jëlee ban diine la fan lañ jëlee jigéen ñi nga xam ne xoolal waxuma sax lay góor ñi ñooy crise garas waaye jigéen ñi ñooy crise nga ñu ne check down la ilaha illa allah mbokk yi ndax dañuy noppi ci lii rek ba dee dajeeg suñu borom te suñuy suñuy doom suñuy sœur suñuy suñuy ñoo koy def ndax dañuy noppi ci lii rek vendredi bu nekk rek koor gu nekk tabaski bu nekk rek ñu yangar yangari uti jumaa ñëw toog kenn du ci wax loolu rek la ñuy def nanu góorgóorlu dañoo am responsabilité kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an raayati borom kër gu nekk da nga am responsabilité ëllëg yawmal qiyaam dalañ la taxawal ci kanamu yàlla wallahi wallahi doom ji di nga wax foo ko dugaloon ak noo ko doon yàngale wallahi al azim kenn ci ñun suñu tànk du jóggi siraat lu dul danañ wax sunu doom yi fan lañ leen jaarale yonent bi moo ko wax nan bàyyi xel loolu nanu bàyyi xel li nu yàlla wax waqifuhum innahum mas'uluun taxaw leen tey dañ leen di laaj allahu akbar taxaw loo leen dañ leen di laaj tey alquran moo ko wax waqifuhum na ngeen leen taxawal innahum ñoom mas'uluun dañ leen di laaj ñu la sa doom ji foo ko yar nga naan man mënu ma woon ci moom dara te moo judd nekk liir say tànk nekk liir bu ndaw ba xëy nekk ponkal nga ni mënuloo ko dara yow waroo woon am doom képp ku ne am doom ne mënuma ci moom dara waroo am doom ndax doom responsabilité la te ku nanguwul yenn responsabilité waroo am doom yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko allahuma axfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna bada almawt bi rahmatika ya arhamar rahimin allahuma ya rab أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله